maaleykum salaamaaleykum ñi may seetaan si àdduna bi yëpp ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen nuyu di leen sant leen gërëm pendant cinq maa ngi nekk di wax pendant six ans maa ngi nekk di wax xam nga kiy wax ku ne xam na doomu aadama yi kuy wax ku ne xam na doomu aadama yi te yaakaar naa ne tamit nit du enrichir boppam di ko yónnee nit ma leeral leen leen lu ndaw. dafa am ñu doon def confrance call conférence call bi six personnes ñoo nekkoon si conférence call bi whatsapp ba si six personnes yi nekkee Babacar Diaspora woo ma téléphone ba may woo téléphone fekk na maa ngi dawal parce que doo jël téléphone di ko teg sa sa nopp bi ma jël téléphone bi mu nekk haut may wax ak moom jàpp ne miic ñaar téléphone bi miic ñaa téléphone bi gars yi nekk conférence ndaxte ñooñu nekk conférence ñu ma doon dégg may wax parce que damaa jàpp ne ñoom seen biir dañuy yeggale seen seen waxtaan si seen biir ma jàpp ne bës naa fi nga xamante ne moom ngay miic pour euh, ñoom duñ la dégg ndaxte laaluma foofu may wax ak Babs Diaspora 221 looloo indi ñoom ñoo ko enregistré ñoom fi ñu toog ndaxte ñoom ñoo enregistré communication bi ma doon wax ak Box Diaspora 221 léegi li ñuy bëgg mooy si àdduna bi ku ñuy xoqotal ku ñuy menacé wala ku ñuy tuuteel wala ku ñuy ku ñuy néewal doole wala ku ñuy yàq non non chaque jour mën leen fu yàlla yàqu rek doomu aadama mënu faa yàq surtout ki nga xamante ne fii laay waxee mu nekk jàmbaar nekk liggéeykat yori ay employéem di leen fay yaakaarul si YouTube yaakaarul si Facebook yaakaarul kenn ndax yàlla xam na ne uma fi YouTube vidéo boo leen gis YouTube rek ay nit ko capté si Facebook bi dugal ko ki bëgg a wax lu ñaaw si doomu aadama lu ñaaw rek lay wax si doomu aadama ki bëgg wax lu bon lu bon leew su doomu aadama tey su ñëwee Griff wax na diw lii wax na diw lii man ñoom dañ maa dàq wax ñoom dàq ñu maa wax dàq ñu maa wax ndax kii wax ba may wax ñoom waxuñu kon lépp lu ma mën a régleel sama bopp rek mën naa ko réglé si internet bi wala Facebook bi kon ñoom suñu jógee naan audio bi Griff ko yónnee nangam conférence call lañ nekkoon nit woo ma téléphone may dawal téléphone bi naxte nekk téléphone nekk haut-parleur parce que du ma dawal di téye téléphone bi nii naxte ñoom ñi nekk si conférence call bi ñoom ñu ngi enregistré la may wax ak Bassirou Diomaye deux cent vingt et un Adamo te moom woowuma de ma part personnel moom man ay nit ñoo ma dugal si conférence call adduna bi nag nii la demee chaque jour ki ndeyam ñaanal wala baayam ñaanal ko wala dëkk bi mu nekk doomu aadama yi nekk foofu ñaanal ko ah wala tey muy toog ay nit di ko ñaanal te xamul leen tey ma ñëw defar ay nit yu bari changé ay nit yu bari ba si démb ma demee kër sëñ la ma nit ma ñëw mu ne mu ne mayoo ma xaalis waaye defal nga sama àdduna lu baree baree baree bari ay nit di ma ko bind message tey benn nit boo xamante ne taxaw lu kon neex mu yàq ko doomu adama yi lu kon neex mu wax ko doomu aadama yi te ku nekk da ngay xëccu pour xaritoog yow ku nekk day xëcc pour xaritoog yow commencé laa neexal commencé laa tarbiwu moytu leen nit kooku nit ki lay xëcc si wetam di la neexal da ngaa baax da ngaa mën a wax dëgg tey toog nga fi say vidéo mu toog si vidéo di ma tagg di ma tagg di ma tagg tey ndax nag conférence call boobu si personne fa nekk yëpp kon ku wax Oh, euh, kuy wax ak ni téléphone rek ne leen ok ne quitte pas yéen yéen a ngi koy enregistré Bass Thioung Souran sama frère la dama koy xam maa ko présenté euh, ki mu xamanteel kon sama problème bopp mën naa ko lii ni sama bopp du kenn moomu koy régleel waaw YouTube YouTube yi nag ñoom seen intérêt bopp lañuy la ñuy carte ñooy jël ay ay ay ay lu bon nag wax yu ñaaw ak wax lu nag di partager ak nangam nangam defar seen bopp mais man ragaluma keeruma lijjantiwuma tey laa gën a mën a wax tey laa gën a mën a def li ma bëgg a def ndax yàlla may dimbali ki sonn nag mooy tarbiwu am lu koy naqare muy toog am amul lu ko fajee waaw amul luñ ko fajee waaw amul luñ ko fajee mais Adamo dina xam ne lépp dëgg la dina xam ne lépp dëgg la li bët yàlla dina atte atte bu garaaw na ñëpp xippi seen bët rek yàlla dina atte atte bu garaaw waaw billahi wallahi taalaahi musuma yónnee kenn audio musuma yónnee kenn vidéo musuma yónnee kenn nagam du ma transféré sax audio jàmbur ñoo ngi si line bi confrance call nit woo na ma si sama beneen téléphone wuyu naa ma jàpp ne bës naa miig bi ndax de miig baa ngi ndax ñoom la may la kooku la may wax moom mu ngi koy enregistré te six personnes ñoo nekkoon si si si ligne bi si whatsapp bi whatsapp groupe am naa ngi noonu nag ku ñuy xokkatal la ngay ragal <laughs> boobaa di nga di de ndax am na ñu bëri dafa tal ñoo ñu woo ko neexal ko di jooy di ko neexal ak ñeneen ñu nekk Amérique bii di ko neexal ngir yàlla li léeg-léeg dimbali ma bul wax nangam nangam man dama ko woo ñëpp dégg nañ ma saagoo ko wax ko li ma koy wax. nit doo ko ragal ragalal yàlla mi la sàkk bàyyi leen di ragal doomu aadama yi ku leen di mën menacer ngeen di tiit di rafet di nangam nangam bu leen nangu loolu.